alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yi nga xam ne yéen a ànd ak ñun ci MTV Sénégal rawatina seen émission bi di teggin ñu ànd ceeg seen xarit euh, sa Seydou Diallo Medina ñu ngi santaat yàlla beneen yoon bu baax di gërëm docteur jaw mi nga xam ne moom lañ àndaloon doon waxtaan ak moom ci impactu Covid 19 bi. ci économie wu àdduna bi rawatina ci Sénégal mu def fi waxtaan woo xam ne euh, ñu bëri ñu ngi may woo di ko rafetlu di wax ñu jàppal ko idda incha allahu rabbi dinañu jéem a góorgóorlu ci loolu tey nag euh, dañu bëggoon waxtaan tuuti ci tolluwaayu jamono Sénégal dëkku teraanga Sénégal dëkku yiw Sénégal dëkku fit Sénégal dëkku jom Sénégal qualité boo boo boo gis ne lislaam bëgg na ko rekk sénégalais yi ñu ngi fekkoon ñu koy dund xanaa kay dafa fekkoon ay xërëm walla ay xàmb ak yu nu demee l'islam dal di ñëw orienté loolu léegi nag ñu bëgg waxtaanee ci kersa muy lii tubaab di wax pudeur arab di ko wax alxaya ci la bëgg a waxtaanee est que kersa dañ ko rendi di Sénégal wala dañ ko jam paaka wala dañ ko bëgg faagaagal laaj bu may laaj la te lu tax ma koy laaj suñu duggee ci biir waxtaan bi di ngeen gis lu tax ma koy laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee diine boo gis muy muy euh, christianisme muy euh, bii di euh, judaïsme wala toutes les religions révélées dañu amoon benn jikko boo xam ne moo leen doon symboliser mu ne nag jikko bi nga xam ne mooy symboliser lislaam mooy kersa kersa ñu xool kersa fi mu toll ci Sénégal da ngay dégg ay turu série wala ay turu émission yoo xam ne euh, luy xotti war ma doomi aadama rawatina jigéen xoolal série yooyu nga xam ne mun nañ ci tudd benn lu mel ni infidel mooy nit koo xam ne dafay fecc kóllëre kóllëre nga xam ne góor ak jigéen yàlla daf leen tegal benn plan ak benn organisation boo xam ne dañ ci war a jaar ngir organiser société bi moo tax mu ne góor bu bëggee dafa bëgg bànneexu ci jigéen jigéen bëgg a bànneexu ci góor nee dem leen jàkka ja fu mu ñu ko jàngalee ci alquran baado auzu billahi min alcheytan rajim fankihu ma taaba lakum min annisaai mathna wa thulaasa wa rubaa fa in xiftum an la taadilu fa waahidatan aw ma malakat aymaanukum yàlla nee na bu ngeen ragalee ñàkk mandu nee na jël leen ñaari soxna mooy takk leen ñaari soxna wala ngeen jël ñett wala ngeen jël ñeent bu fekkee dangeen ragal ne du ngeen fidèle du ngeen fidel nangeen ngeen yem ci benn xoolal ma moo bi yàlla employé mu ne bu ngeen ragalee mandu si diggante soxna yi yor leen kenn ñun ñu ñëw di jël sunu film wala sunu série di ko tuddee infidèle ba pare ñu ne ay jullit lañu fan lañu tollu Sénégal Sénégalu démb kuñ la ci woon ci sunuy maam yi ndoket marinière taille woddoo ay ñetti sër dañuy def jiital teg ci beneen teg ci beneen ba buñ daan fecc sax seeni fecc ay gumbe la doon doon ay gumbe ay ndaga fecc yoo xam ne seen tànk du jóg seeni mole du feeñ waaye léegi waxuma la fecc de fecc waaye dangay gis jigéen joo xam ne day génn këram nga yaakaar ne kii yéreem yëpp a lakk ndax li muy sol dafay xaj ci mbuusu ñetti dërëm te li gën a garaaw mooy jigéen joo xam ne dafay wuññi ay awraam yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kooku du jege sax aljanna xetu aljanna du ko xeeñ lu waral loolu mooy ñàkk kersa gi nga xam ne ñàkk na ko kersa bay wone ay awraam te loolu ñuy wax bokkul ak awra bu mag bi dafa am awra bu mag ak awra bu ndaw mbokk yi àdduna dafay wara bëgg tukki wala man maa sël mu jëmale kaw kàddu goo xam ne nit bu koy wax ci biir néeg du bëgg sax du bëgg sax moom ci boppam bu koy wax mu koy dégg ngir am kersa luy dox ci diggante góor ak jigéen ñu bañ ba buñ lay jox sa séet sax guddi lañ la koy jox nit buy jege soxnaam sax guddi la taamu donte bëccëg mun nga ànd ak sa jëkkër wala nga ànd ak sa soxna waaye guddi lañu taamu ngir lan sutura bañ nañ ko ba dañuy fay làmp loolee lépp nga xam ne li nga yor dagan na la teey na laab na ci biir loolu yaa ngi am awra yaa ngi am orma yaa ngi am orma sa diggante ki nga xam ne moom nga siqal lu dagan loolu bu ñu demee nag ba série bu mel nii di daw fii ci Sénégal jar nañu taxawaat seetlu fi ma toog di gis vidéo bi sama yaram mi ngi daw maa ngi xalaat kilifa yi nga xam ne ñi ngi ñuy seetaan te musuñu ñuy xamee lu ñàkk teggin mësuñu xamee ñu lu ñàkk worma waaye faw ñu won leen ne lii mi ngi daw fii ci Sénégal gis ngeen góor gu ñàkk fayda gi kii kii kii nga xam ne moo nekk ci volant bi ak jigéen ju ñàkk teggin ñàkk kilifa ñàkk worma ñàkk respecté jigéen foo ko nett weesu na ko kii moo bon xaw ma ku la jur xaw ma foo cosaanoo waaye yaakaar naa ne say kilifa yarewuñ la nii loo xam ne daa nga dund ak sa jabar mu gis mbaax ba mu jeex doo ko xam lu dul ne danga ko soxla ci diggante bi mu ne la alaaji setuma walla dama gis mbaax doo gis sax fu mu koy sànnee nit dina nekk ak jabaram at ñaari at ñetti at du yëg ne soxnaam gis na mbaax waxuma la ak muy gis ay wutteenam yooyu yow jàng bon bon bokk bon ànd ak bon ñàkk teggin dem ba dëkk bi ñu tuddee mboneel ngir dañoo bon ñu génnee la fa ngir bon producteur bi daal di la jël ne la yow sa mbon wëragul àdduna kaay ma siiwal la mu ne waa ji sama bopp day metti damaa gis sama mbaax waaye li gën a ñaaw mooy xoole nu mu ubbee tànkam yi ngeen baal ma ci wax ci dal di jël loolu nga xam ne mooy coton bi won ko waa ji ne ko damaa gis mbaax est-ce que kii baax na ki baaxul mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu ñu demee ba réew tollu fii te kilifa yi génn ñu tere lii nee na bés bu ñu tàllee suñu loxo naan yàlla may ñu yàlla nee na du leen may yàlla nee na du leen may wallahi sama yaram a ngi daw sax jigéen démb boo ko gisee rek mu won la sa yaay cofeel gi nga amoon ci sa yaay worma bi nga amoon ci sa yaay yéene bi nga amoon ci sa yaay yërmande bi nga amoon ci sa yaay moom ngay am ci jigéenu Sénégal démb waaye tey xoola ki ñoom ñaar ñii nee nañu dañoo am jëkkër kenn ki yoo yaayee nee na moom jëkkëram maanaam satisfaire ko dafay dem ci saal yi nga xam ne fa góor ñu ñàkk fayda yi ñàkk diine yi seen doole jooju ñu war ko défendre lislaam défendre ko Sénégal développer sunu Sénégal gi ñooy war jabaru jàmbur yi di tëdd ak ñoom laa xawla wala xawata illa billah ndax yonent bi nee na boo demee ba ñàkk kersa lépp loo def ci mbonte da ngay doog a tàmbali waaye yegg ko au plafond kii bon na moom ku yenn ki ne ko man falaa ji wutee ji waa ji ne keneen ki jigéen ki naan ko damay dem fekk fa koo xam ne dafa am big bu rëy subhanallah xoola ma kaddu yu ñaaw yooyu muy jël di ko véhiculer naan xoolal Sénégal fan lañ jëm ku tiitul man tiit na yàlla dafa ñuy wax ci alquran lu'ina alladina kafaru min bani wa isa bni maryam kaanu la yatanaawna an munkarin faalu yàlla nee na waa banu israil yàlla daf leen rëbb ci lisaanu daawuda ci làmmiñu daawuda ak insa ibnu mariama nee na lu waraloon loolu mooy dañ daan gis ñuy def série yu mel nii yu bon yii ay infidèle ay l'homme xaw ma maîtresse d'un homme marié ñu koy def ci Sénégal te amul ñoo xam ne jóg nañu ne teeleen seen loxo arrêté leen su ngeen def seen bon dem leen seen ay soirée privée dem leen seen ay boîte de nuit dem leen ci seen yéen a xam fu ngeen dem waaye du ngeen ko indi ci sunu réseaux sociaux yi nga xam ne adduna bi yëpp ñoo ko bokk di ngeen ko indi ci suñu télévision yi nga xam ne ñun mun nañ ko bañ a seetaan waaye suñu doom yi nga xam ne xàmmeeguñu lu bon ak lu baax te ñuy lu ci ñoom di leen wax ne lii moo baax lii moo bon bu ngeen leen fësalee ne góor war na mun a am jabar di mooy yàlla jigéen war na mun a am jëkkër di mooy yàlla damay ragal yàlla rëbbuñu ni mu rëbbee woon waa banu Israil wallahi waxuma kilifa diine waxuma amiru jamaati mais am na ay kilifa yoo xam ne ñoo nekk ci seen suuf ci su fekkee hiérarchie la ñuy wax ñoom bu ñu jógee lii dañ bu ñu jógee lii dañ maa ngi woo politiciens yi nga xam ne ku ci saaga sa yaay nga porté ko plainte ku saaga sa leader politique nga porté ko plainte ñun dañu saaga sunu diine dañu saaga sunu honneur dañu saaga sunu moral xoolal jigéen ji ñu tuddee soxna maam jaariyatullahi ñu tànn ko lu tax tànn ñu beneen jigéen ñu tànn jaariyatullahi ne ko dindil sa muuraay bi au lieu que ku jigéen ki ne ko yow dindil sa greffage bi moom mu am audace nan ko dindil sa muuraay bi nga ñëw def nit ñun sol yu gàtt yi teg cheveux yi nga xam ne dalay lay dénaturer moom au mu répliquer ne ko yow yaa war a tuub ndax lii dafa xaraam dafa bon waaye mu nekk fa di wax ay waxu nasaxa xandak nga naan dañuy jàngale ñu ne déet ne waay ñu jël kaye eh, franc yi soxna si téye ko ah, di def promotion wu promotion wu franc dama ne yonent bi lu mu wax du dañ de nee bu ñu demee ba kersa dal di dee ci aw xeet na la leer ne xeet boobu ci yoonu alku la jëm ci yoonu alku la jëm tubaab yi ñoom ñi ngi ci buntu alku ñun nag ñi ngi ci ëttu alku ñoom bu yàlla alagee ba pare si ñun lay jubal ana ban média mooy mooy nangu lii ki moom média bi ku mel ni Mansour Diop ku mel ni Ahmed Aydara naan gars yi téye leen seen làmmiñ ni yi jóg nag ne sunu lislaam bi maam yi li ñu fi bàyyil sunu ndono jikko yooyu kenn duñu duñu nangu kenn di ko salfaañe ngeen ne ñooñu nañu maandu yéen ban façon maandu te ngeen di wax Ahmed Aidara Mansour jóg lu ngeen mën a fay ci seen TV jaru ko l'histoire dara seen kàddu yi ngeen wax film yu bon yooyu Mansour du nangu jabaram def ko du nangu doomam def ko Ahmed du nangu jabaram def ko du nangu doomam def ko rakkam du ko nangu yéen yéen a war a ci nit ñi nga xam ne bëgg nañ lu baax daal di tasaaroo mbokk yi dañuy teg fi suñu baaraam ndax infidèle tant que ñoom fidèle ñu ñun du deñ di réagir ñun amuñu procès bu ñuy tenir ak kii que ce jéemuñu jubal ci ay personnes déedéet ñun ay fait ak ay acte la ñuy wax amul kenn koo xam ne ñun yi ëmbaluñ la yiw wallahi al azim képp kuy doomu aadama ma jullit de képp kuy doomu aadama yàlla nee na dama bëgg doomu aadama ndax moo ma gënal ci lu ma bind nga nangul ko nga ñàkk ko nangul yàlla mi ngi lay jox sa wërsëg nga nangu nga ñàkk nangu yàlla mi ngi lay jox ngelaw nga nangu nga ñàkk nangu yàlla mi ngi lay roof nelaw pour ngay peere yàlla moomu nag moo ñu wax ñu bëgg doomu aadama moo ñu wax ñu yërëm doomu aadama kon cofeel googu ñu am ci yéen moo tax ñu bëgg leen xippaloo seeni bët ndax xippi jot na àdduna dara jaru fi dara ñaat ci ay kilifa ñoo fi dee à l'espace deux mois li fi dee ci ay kilifa ñaata lañu bu fekkoon rafetal nañu alhamdulillah bu fekkoon ñaawaloon nañu instant bi kenn du tëdd te ñaanaloo leen ngir yàlla jéggal leen ngal la yéen tamit yàlla na yàlla may leen tuub balaa dee di ñëw ñu ngi leen di jéggalu bu baax su wax ji jógee euh, xam ne xol bi moo am lu mu yëg ci njàqare ak tiis ak bëgg réew mi jëm kanam mag ñi nga xam ne ñoom ñoo jàngal nit ñi diine ji ngir tey ñu nekk ay jullit ñooñee la ñu bëgg loolu ñu fi sàmmoon loolu ñu fi jiwoon ñu nit ñu jéem koo ñu jéem a ji lu mel noonu wala buñ ko mënul ñoom loolu ñu ji ñu jéem koo sàmm seen mbokk la woon seen jàlloo seen émission euh, teggin di ñaan sunu borom mu defal ñu tawfeex ak taysiir di jéggalu njuumte yi di ñaan yàlla mu defal ñu sutura àdduna ak alaaxira wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.